sat yi di tàkk xale yi taal làmp yi di fecc di jubile kon yéen ñemewu leen gaynde gi yéen tey bu ngeen tëddee di ngeen nelaw yéen opposition bi ngeen xam ne da ngeen a taxawoon pour Macky Sall dem waaye da leen a ni leen man gor laa da leen a won leen man garmi laa da leen a won leen man lu ma waay gën a bëgg ma bàyyi ko moom te da leen a bàyyi ak sénégalais ah sénégalais yi ngeen won ni Macky Sall bëgguñu leen waaye moom tey daf leena a ni leen xam naa ni bëggu leen ma waaye bàyyi naa leen ak seen réew barki Serigne baaba Sy bu ngeen keneen kun fi teg bu ñu toogee ñaari weer ba ñetti weer bu sénégalais yi jooyul ba ñu def baa ñu def ñax def ñaxtu ma xam ne def lu baax amul solo ci kaw suuf Macky Sall kii moo baax kii moo bëgg Sénégal kii moo defar Sénégal Adama moom mbaa yëg nga ni dootuma dugg ci urne di woteel kenn man dootuma hmm. bëggati benn président dootuma bëgg ti benn politicien man sama xol Macky Sall laa ko jox man sama bëgg-bëgg ci Macky Sall la nekk dama ko nangul nag dama ko nangul nag décision bi mu jël ndax gor rek moo mën lenn te Macky Sall tey wan nañ leen ni dama leen a gën a nekk gor wan nañ leen ni tey maa leen mën ci kaw mën leen ci suuf wan nañ leen tey maa leen dàq politique ku ngeen fi indi maa ko mën waaye tey waa Ousmane Sonko yi xanaa bu ngeen dee ni ngeen nelaw waaye katt leen seen lëfa nday fokki sa rëbës ngeen jëm ah. yéen bu Macky jëlee avion dem organiser ay élection fi ki fi war a toog toog fi yéen rëbës ngeen jëm bu soobee yàlla yéen bu dara metti yéen rëbës ngeen jëm yéen du ngeen jiite senegal ndax mënoo leen a jiite senegal da ngeen di wër di tëdd xale jigéen ñi Ousmane Sonko lëfal ndayam moo ko ànd seen lëfal nday yéen Ousmane Sonko ak ko ànd ak Ousmane Sonko Macky Sall wan leen ni bëggoo leen ma waaye bëgguma leen. Macky Sall xanaa du moo leen xanaa moo leen yeewi xanaa du li tegewoon ci seen mbagg yi Macky teggil na saaga yi waay saaga yi saaga yi saaga yi eh, dama ni bàyyiwuma saaga yi dama ni lëfal ndayu Ousmane Sonko laa wax ak ko ànd ak moom non Adamo Adamo dama ni lëfal ndayu bu kenn dépassé ko ñaan rek non bu kenn rek dama ni lëfal waa Pastef ak ko ànd ak Pastef ak koo mënti doon sant woo mënti sa lëfal nday faalewu ma leen li wax dama koy wax da ngeen a bëggoon dem abal na leen réew mi wan na leen une bon toute une bonne fois pour tout wan na leen ni man damay dem pare naa wan na leen ni yëngalu ma wan na leen ni nguur yàlla rek a dul jeex kon nay rafet wax ju ñaaw ju na teg ngeen ko ci deru Macky Sall bi lu ne jiñ ngeen ko Macky Sall jiñ ngeen ko fi Macky Sall day indi ay góor jigéen jiñ ngeen fi Macky Sall dafa bëgg a wotal góor jigéen bi ngeen fi Macky Sall dëmm la jiñ ngeen fi Macky Sall faramason la waaye mu jógee Màkka am aj nga xam ni fii ngeen ñeent fukki guddi tey bu deewoon suñu borom yóbbu ko àjjana mu yor aj de delluwaat nekk xale bu ndaw ñëw taxaw ak yéen ni leen la ma waxoon 2019 laay wax réew mi duma ko jalaat soxlawaatuma réew mi xanaa kii mooy gor xanaa katt ngeen seen nday ngeen noppi ngan tëj seen gémmiñ ñi amoo leen lu ngeen wax gàcce du leen rey tey bu ngeen doon ay gor da ngeen di dee barki salaatul fàtte ku ci déglu discours président boo pare da ngay naan da ngay naan posan nga dee parce que nag wax bu ñaaw bu ne wax ngeen ko amul fu ngeen ko jaboliser wul di ko jaboliser ba di ko jaboliser ci réewu tubaab bi di ko porter plainte ba di ko topp ci réewu tubaab yi ñoo toj seen lëfal ndey am na ci ñenn ci sénégalais yi ñoo xam ne taxu na maa bëggumaa doon sénégalais man ndax ran rancunier am na ci ñoo xam tey dañoo taxaw ci panel yi di jubilé di dugal ay stati nan Macky Sall dafa daw Macky Sall ku ne xam na ne du daw ku ne xam na ni kii gaynde la gaynde ko tax doon li mu doon gaynde ko tax a xuus jàll gaynde ko taxa a doon jël réew mi mille 2012 fi mu fekk réew mi ak fi mu indi tey réew mi kii dafa yayoo ñu delloo ko njukkal kii dafa yayoo ñu sargal ko kii dafa yayoo ñu tatagal ko aj ka ca kaw ñun rek ñoo xamul valeur am ñun sénégalais waaye nag yàlla dafa dogal ni sénégalais moom mën na laa fa xeexle ba nga falo waaye bis boo faloo mu taxaw xeex ak yéen te yéen ñi taxaw pour bëgg Ousmane Sonko sax falo man tey damay ñaan yàlla Ousmane Sonko sax nekk président ndax mu toj seen cottu nday yéen ñi ànd ak moom di leen mbugal midi matin soir tabax ay hôtel ak ay kaaw di leen tëddee di leen duutal ndax loolu ngeen mérité. yéen loolu ngeen mérité tey yéen yenn ci sénégalais yéen ubbi seen la fal nday ci ñi ma ko sañ a wax yéen a bon yéen a ay doomu xaraam yéen xam leen jërul dara waaye di ngeen xam ne Macky Sall mii bu jógee fii sax day nguuruwaat yàllaa ko teral kii ter tedd na ba pare munoo leen ci moom dara am na loo xam ne dafa ñaaw ngeen ko yóbbu ba di ko yóbbu ay CPI fu ne ngeen jaboliser ko fa kilifa diine bu ne mi ngeen taxaw fa ne Macky Sall day valider góor jigéen mu génn taxaw ni leen tànk maa ngi ci bopp réew mi kenn du valider góor jigéen waa ala ki ànd ak góor jigéen mooy Ousmane Sonko ala ki ànd ak góor jigéen yi mooy ki nga xam ne day wër di def ay cortège di katt ñi mu àndal di yor ay préservatifs ay lubrifiant yéen yéen a toj seen lëfal nday yéen ñi ànd waa Ousmane Sonko Adamo merci beaucoup mën nga maa wàcce ok jërëjëf lay déglu. Euh, salaamaaleykum euh, bon man sama wolof leerul gaa mais tey moom xol neexul. Sall yow mën ngaa kaw ku fi wax lu mu rek katal ndayam. ñun makis lañu te makki lañu.